Pastef way Pastef contacté wu ko Amadou Ba contacté ko seet si ko. mu àndoon ak moom ci présidentielle. Mhm. donc ce serait logique aussi mu ànd ak moom pour man ça ne pose pas une question euh, un problème d'incohérence posé wu. na nekk candidat rek. te euh, peut-être que ni Amadou Ba dina ko def euh, à une bonne place à la liste nationale. d'accord. alors euh, ba tey ci élection législative yi gis nañ Abbas Sall aussi mu ngi monté au gis nañ ko depuis bi Pastef gagné euh, nguur gi ba léegi mi ngi ah, moom day attaqué barte rek. nee na il faut reprendre Dakar. Euh, Abbas on ne peut pas ki ki gagne Dakar gagne le Sénégal. Abbas ab ah, ah, il a déjà Abbas Fall ak Barthélémy il a il a déjà repris Dakar. n'oublie pas que Abbas Fall non présidentiel yi nii. mais présidentielle mais mënuñu mënuñu comparer présidentielle ak élection yi nga xam day ñëw c'est Barth lui-même qui nous avait donné rendez-vous à ces présidentielles mënoon nañu wax ne bokkul. mais loolu mënul tekki loolu. non cest à mais Barth nekkul woon candidat ah mais xam nga nekkul candidat. mais euh, Abbas aussi nekkul candidat n'est-ce pas. alors donc. Barth qui a gagné Dakar nag nekkul Abbas Fall moo gagné Dakar ah. c'est le passif qui a gagné en tout cas. passif c'est la coalition man loolu laa gëm. mën naa la ko nangul moom. man loolu laa gëm amul benn responsable ci coalition boobu noonu bu war a mën a fëgg sa dënd ne man maa gagné bërëb sàngam. waay kon c'est pas Abass Fall mais euh, parce que Ousmane Sonko euh, moom mooy leaderu Abass Fall. comme Khalifa Sall est le leader de Barthélémy Diaz. Oui. donc entre Abbas Fall et Barthélémy Diaz combat par procuration la. Oui. Abbas a déjà battu Barthélémy. ci présidentielle yi parce que Barthélémy moo nañu woon bu de bu demee ci présidentielle yi dinaa leen wan ne maa moom Dakar. bu dem ci présidentielle pour man pour man c'est pas Abbas Fall. d'accord d'accord l'avenir va nous édifier alors donc euh, entre Abbas Fall. Mm-hmm. ak Barthélémy Diaz. Euh, le euh, novembre prochain di xamaat ne Barthélémy Diaz dara. parce que face à Ousmane Sonko. mais pas face à Abbas fàtte ne Bat xool Abbas il était le premier adjoint de Barth n'est-ce pas. oui lan lañ ko mujj def une trahison flagrante. venant de Barthélémy Diaz su ko mënoon a jëlee assemblée nationale da koy def alors donc ce sera le moment pour Abbas effectivement de marquer son territoire euh, en tant que responsable de Pastef à Dakar c'est très normal et c'est très logique et je pense qu'il a les bagages nécessaires parce que le Pastef aussi am na des arguments vraiment euh, des arguments de taille pour euh, faire face à n'importe qui je ne parle même pas de Barthélémy Diaz kese parce que Barthélémy Diaz tamit Ousmane Sonko moo ko teg fi mu toog. alors euh, Barthélémy Diaz moom ma gis nañu mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi mel ni luy campagne dem na ci ay coalition alors dañ ko condamné euh, loolu itam moom. non dossier am dossier am gën ko leeral Sénégalais yi. waaw xam nga euh, Ousmane Sonko lu tax bokkul ci présidentielle yi. condamnation a 6 mois 6 mois de prison. Barth a eu la même condamnation 6 mois. sursis waay mais dama leen ko doon wax. ce n'est pas la condamnation. ci élimine euh, le candidat. oui retrait. conséquence su condamnation bi. Ah, c'est-à-dire retrait des fiches. fichier électoral. mais Ousmane Sonko. condamné nañ ko te voté na présidentiel. non parce que il a été amnistié entre temps. ah non mais mais dossier Mame Mbaye Niang bi ci amnistie bi la bokk. non lépp lañ amnistié dossier boobu politique la de. dossier boobu gën a doon politique lépp. mais diffamation la ñu wax. c'est une affaire privée. non ah, mais attends euh, pourquoi waxoo corruption de la jeunesse c'est une affaire privée. non loolu moom. Euh, bii moo gën a doon politique parce que Ousmane Sonko était dans un cadre politique di wax ci cadre politique boobu la ko Bambey daa porté plainte. d'accord donc il n'y a plus de condamnation. jeex na parce que looloo tax Ousmane Sonko revêtir maintenant tous ses droits yi. d'accord il n'y a plus de condamnation. ah nag leerul ci kanam askan bi am nañu parce que man damay gis ay articles des sites yoo xam ñuy référentiel lañu. ñu naan Ousmane Sonko ne pourra pas être candidat. ne euh, pourra pas Ousmane Sonko voté na ci présidentielle yi. waaye gis naa la dam d'amnistie a effacé tout ça parce que boobu aussi c'est politique alors euh, lan mooy des ci condamnation bi mooy amende euh, dédommagement wu 200 millions. waay. Euh, Mambay kaay jël sa 200 millions. Euh, foo mënti jàngi loo mënti jàngi bàyyi ko kaay ñu jox la sa 200 millions. <laughs> mais mais bu fekkente ni condamnation bi dañ na 200 millions yu si dafay dañ. du dañ. pourquoi bokkuñu. bokkuñu lii c' est une condamnation pénale. waay l' autre est une condamnation civile. donc condamnation. Euh, bokkuñu pénale ak civile mooy lan. bokkul loi loi si mhm. pénale bi lay dindi. d' accord. loi d'amnistie c' est l' aspect pénal de la condamnation. d' accord maanaam boo déggee la. Mhm. à temps de d'emprisonnement ouais. avec ou sans sursis boo déggee ñu ne la amende nañ la temps mm-hmm. ñaar yooyu noonu ay sanctions pénal la boo déggee nag réparation de préjudice d'accord maanaam dédommagement mm-hmm. loolu c'est civil ce n'est pas pénal d'accord loolu kenn amnistié wu ko ah lépp lu jëm ci wàllu civil lépp lu jëm ci civil. kenn amnistie non non mënul nekk c' est pas possible du tout. d' accord sinon la reddition des comptes ne pas ah, reddition ah, alors donc loolu tout ce civil. Mhm. kenn amnistie wu ko. donc kon 200 millions yi Mame Mbaye Niang doon laajte kay mi ngi fi ba léegi. day ñëw jël si mam kaay jël si ko. waaw <laughs> mënu fee bàyyi 200 millions nag. léegi c' est bi moo ko xaw a wax léegi grand bi moo ne woon du laal fukki dërëm léegi grand ne ko kaay jël sa xaalis. kaay jël nga laal fukki dërëm. maam léegi pour Barthélémy Dias loo jàngi ñëwal loo jàngi bàyyi ko ñëw jël sa xaalis. <laughs> non dafa jàngi woon léegi mais bu diplôme bi génnee day ñëw bu diplôme bi parce que il faut mu liggéeyal Sénégal. Euh, na ñëw waa am problème rapport product bi quoi tamit foog ñu jàngandoo ko maam hmm? rapport bi amul amul rapport existé wul maam ñëwal bien. <laughs> moom ñëwal te 200 millions sont là mu ngi lay xaar si dëkk ah def na conférence de ah, presse fëgg dënnam ne def na hypothèque waay mais mais Bambey kay jël sa hypothèque viens prendre aussi ce n'est pa compliqué ça euh, part a pas ah donc comme euh, la loi d'amnistie euh, moo delloowaat Ousmane Sonko. ci droit waaw Barthélémy Diaz est-ce été retiré des fichiers électoraux ça je devrait être la conséquence logique Barthélémy Diaz warul doon candidat conséquence logique bi mooy bu ñu la condamné ne peuvent pas être inscrits sur les listes électorales. loolu la ko il faut révision wala. pour ñu retirer ko bi bi ñuy retirer Ousmane Sonko euh, révision amoon na. non non ah waaw pourquoi bi ñuy xaar. mais Ousmane Sonko est-ce que retiré woon nañ ko ci ci liste ci ah, fichier bi. Ah, ah, am. non retrait euh, xam nga euh, retrait des fichiers électoraux. Mhm. day dañ koy mise à jour. d'accord d'accord. bu condamnation amee dañuy mise à jour. d'accord L29 euh, euh, L30. Mhm. moo éliminé Barth ne peut Barth par peut pas être inscrit sur les listes électorales. parce qu'il est condamné à six mois. Mhm. et delluwaatal ci code électoral tout candidat électeur. ba Barth n'a pas de qualité d'électeur il ne peut pas être mais bon xam nga Ousmane Sonko. léegi pourquoi pàcc xoo bi ci ci biir ci biir ci biir coalition yi tamit kon Barthélémy Dias pëccëxoo c'est-à-dire. ah dem na photo toog. ah, ah non non non non moom moom kay jàpp na ne candidat peut-être que ni il n'est pas retiré je ne dis pas qu'il est retiré carrément. peut-être qu'il mais en la loi dispose ça loolu laa wax peut-être il ne l'est pas mais la loi lii la wax. te loolu loolu moo tax Ousmane Sonko nekkul candidat nest loolu la wax. Mhm. Ah, waaw voilà donc euh, li mën a éliminer Ousmane Sonko kay moo war a éliminer Barthélémy d' accord alors euh, ñu jógee ci nag ci élection législative yi jëm ci beneen dossier mu di la reddition des comptes euh, Lat Diop ba tey euh, amoon na benn garde à vue ñu prolongé ko beneen garde à vue alors ci dossier am moom Lat Diop bu ñu jàllee ci garde à vue lan moo ci mën a am. non loolu ça dépend du procureur. procureur moom moo am l' opportunité des poursuites. Mm-hmm. su jàppee ne. lii ñuy toppee euh, Lat Diop jar na topp mm-hmm. li ciy topp moom mooy mu def euh, réquisitoire introductif ne mm-hmm. lii ak lii ak lii lañ koy toppee mm-hmm. euh, jébbal juge d'instruction tout dépendra mën nañ ko dóor mandat de dépôt comme mën nañ ko ko bañ a def juge d'instruction wéyal enquête am à charge et à décharge mais ak lu mënti demee je pense que les chefs d'inculpation qui reposent sur lui blanchiment ak euh, détournement de deniers publics. Mm-hmm. même s'il est supposé. Mm-hmm. même si est présumé innocent pour le moment. Mm-hmm. mais l'enquête suit son cours et la procédure est normale je ne vois aucune violation des droits de la défense te lépp loo xamante ne mi ngi euh, dox ci euh, justice bi je pense que ça ne souffre d'aucun problème. d'accord sans confrontation woote nañ ko Mohamed Dieng. accusateur am ci ay cinq milliards ak yooyu ci discussion WhatsApp. Euh, daañu janoo ñoom ñaar euh, diggante procureur est-ce que loo xam ni euh, laalu laalul ci gestion bu LONASE bi ñu ko dénkoon dinañ ko ci mën a def dara. non euh, c'est dans le cadre normal euh, de l'enquête mhm. léegi nag kenn waxu la ne moo def de. Ah, dañuy saytu les présumés innocents dañuy enquête. Mhm. alors léegi xam nga tey jii nii Lat Diop il fut ministre. mais sa gestion ci biir euh, LONASE. Mhm. moom moom moo jur ay euh, wax léegi nag dina def confrontation. Mhm. l' autorité judiciaire va apprécier. la suite à donner à l' affaire. mais mhm. loolu moom compétence am la ressort exclusif am la moom. d' accord alors euh, beneen dossier aussi gars yi ñu ngi.